salaam salaam dal leen jaamu ci seen podcast mën na nekk podcast bi dugg fépp ci Sénégal di waxtaan ak ndaw yi nekk seen dëkk di fa xëy ak di jàppale seen ay moroom ci wàllu samp sa këru liggéey butum xëy ak sàkku xam-xam fépp ci biir Sénégal tey nag ñu ngi ci région bi nga xamante ne moo doon dëkku buur Sine Kumba Ndofène ak Salmon Faye su ma leen nee ñu ngi dëkku président Macky Sall dëkku Yandé Codou seen ak Yaxya Diop Yékini di ngeen xam ne ñu ngi fi ñuy woowee Fatick Fatick mi ngi bokk ci dëkk bi ñu daan woowee Sine ci atu 1984 la dëkk bi nekk région ndax dafa nekk diwaan bu mës a bëri yëngu-yëngu ci wàllu mbay napp tourisme ak yeneen ak yeneen ñetti département la région bi am Fatick Gossas ak Foundiougne Foundiougne nag dañu ñëw tey seet fi benn jàmbaar bu tudd Ali Ba nekk guide touristique bu ñëpp ràññee liggéeyam fii ci Foundiougne. mais Ali yow lan moo la inspiré ba nga ne da ngay def entrepreneuriat dans le tourisme. waaw Elzo question boobu dinaa sawar a tontu trop euh, ndax euh, Foundiougne dama juddu fekk ko fi donc du développer li nga xam ne tey moo nekk euh, le commerce également ma gis na loolu dafa xawaate suuf ma gis na tey Foundiougne am na des des points attractifs li nga xam tey moo nekk la structure li nga xam ne moo nekk la pêche li nga xam ne tey moo nekk l'agriculture man ne tey man jeune bàyyi ma engagé wu pour jéem a suqaliwaat sama goox lii moom daal la am ki nga xam ne tey moo nekk sama inspiration ci li nga xam ne moo nekk ci tourisme bu ko développé li nga xam ne tey moo nekk le tourisme à Foundiougne waaw yow ñoom ñooy say clients ci activité bi. waaw Elzo man samay clients euh, li ci ëpp yëpp Europe lañu nekk mais nag euh, néanmoins de temps en temps dina am ay clients yi nga xam ne tey c'est au niveau local nan ngeen defee communication. bon la communication je le fais au niveau de Facebook j'ai ma page Facebook. Ah. également donc de bouche à oreille ñi nga xamante ne bon satisfaire naa leen. ak tamit via WhatsApp. Hmm. Instagram et de suite. waaw ah, tey moom kenn mënu def benn activité te te doo actif digital bi quoi. mais pour yow lan mooy qualité wu entrepreneur même bu dul ci sa domaine yow un entrepreneur en général yan qualité la war am pour réussir activité am. qualité yi nga war a am d' la formation d' abord il am la formation ba am la patience. ba pare am faire également la quête du savoir. est-ce que am na ay obstacles yoo xamante ne moom nga jànkoonteel te surmonté nga ko tey jii. waaw mais parce que loolu ça fait partie des la vie donc obstacle moom ku bëgg dara di nga am obstacle parce que loo xam ne tey euh, da nga nekk ndaw ndaw rek dafa métti donc am na ay obstacles yu bëri yoo xam ne mais man je me am na li nga xam ne moo nekk suma kanam moo nekk suma réussir donc naa ko def pour réussir donc c'était un peu compliqué donc pour accéder à aux études mais quand même ko fighting dem li nga xam ne tey moo nekk j'ai passé par la maçonnerie xam nga jaar naa ci carrelage jaar naa ci li nga xam ne moto Jakarta ba ainsi ma arrivé moto ma macha allah également ci nga xamante ni moo nekk euh, donc le tourisme macha allah xam nga loolu dafa am solo. parce que jeunes yi dañuy foog ne da ngay yeewu rek benn jour gis benn aali muy def business am gars yi di ñëw nga jëli leen aéroport ñëw yóbbu leen Indiana visité leen ñu foog ne. dafa yomb. xam nga yow soo ma waxul woon def nga maçonnerie. def nga yooyu noonu yëpp du ma ko xam. donc c'est bien jeunes di xam ne que dara xiilul rek sotti. yoon bi du yomb di nga jaar ci ay yu bëri mais sa objectif da nga koy am nga focus ci quoi. mais lan mooy avantage nekk fii nii Foundiougne nga xam ne fii nga juddoo yaroo fi di fi liggéey nekk près de ta lan la lay def loolu noonu. tey maa ngi développé li nga xam ne moo nekk suma économie locale. Parce que si le tourisme vient, on, par exemple, tu as 10, 20 touristes, et chaque touriste contribue, contribue à acheter un, quelque chose. Ne, ne serait-ce que moi, c'est 10 ça fait partie du développement local. également, nous demandons l'eau prôné et tout. Donc, je suis très fier de, de moi-même. Franchement, je te félicite. Ouais, merci beaucoup, ah, Enzo. Je souhaite de bonne continuation. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, merci encore pour la visite. Merci beaucoup, c'est ouais. un plaisir vraiment de vous rencontrer également. merci beaucoup. Merci beaucoup. Adieu, mon frère. Adieu, moi. biir Fatick bëri na secteurs yu ndaw yi toll ci liggéey mën a jublu mën ngeen liggéey ci tourisme exploitation du sel élevage pêche transformation de produits halieutiques ak yeneen domaines yu bëri yoo leen mën a gëstu boo leen demee Pôle emploi Pôle emploi wu Fatick mi ngi nekk Darel jàkkaarloo ak mairie bi Pôle emploi wu Foundiougne mi ngi nekk ci préfecture funjuñ Pôle emploi wu Gossas tamit mi ngi nekk ci préfecture Gossas képp kuy ndaw ci région wu Fatick te bëgg tàggatu am na formation yu mun def te du la dikkee dara mbaa mu dikkee la néew mën ngeen tàggatu ci sérigraphie soins esthétiques santé communautaire cuisine maçonnerie ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen demee ci page yu mën na nekk yi nekk Instagram ak Facebook di ngeen fa fekk information yi ngeen ci soxla yépp xaar ñun bal pour lekk ah vert jaune rouge team équipe bu champion lay play Sénégal yi bëri feeling fa ma fekk damay gëlën sama tàll yëpp wigin man ma dox ci lu ma yaa ngi samay clip xale yi xam nañ aw ma limite mineur bu dee sama musique jaay taar du fay àdduna metti na waaye nag Baay Faal bu tiit ndax Baay Faal ma ne yaakaar du fi teraanga sutura ak jaam mën na nekk am fi koom-koom alal ak ndam mën na nekk te dina nekk. welcome back ci seen podcast mën na nekk en direct de la région de Fatick maa ngi nii nag dalal fii benn jàmbaaru diwaan bu ñuy woowee Khoudia Diouf Khoudia mooy la championne Fatick. du réseau des champions pour réussir au Sénégal Khoudia na nga def. waaw ah, maa fi Elzo. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm

Quand on parle aussi de Fundjoun, on fait allusion à la pêche qui servent bien à Fundjoun aussi. Et ça fait pas de notre particularité. J'ai vu des magnifiques puits de sel. Voilà, ah, exactement. J'ai vu un magnifique bras de mer. Mm -hmm. Et vraiment, c'est une ville à visiter, je confirme. Mm. Je suis éducatrice, j'accompagne des enfants qui sont en situation de handicap et qui sont actuellement à Warang. Et notre association s'appelle les Cajutiers. waaw yow moom accompagner jeune accompagnement ci en général sax dafa bokk ci yow dafa nekk ci yow maa ngi lay ci félicité bu baax parce qu'on a de gens comme ça parce que àdduna solidarité moo koy doxal quoi. bu moo gisee sa parcours da ngay xam ne am nga générosité am nga disponibilité. ban accompagnement ngeen mën a indil jeunes yi ci région bi ñuy déglu ci wàllum wut métier ak wàllu jàng métier. nous entre jeunes. on voit qu'on est ambitieux on n'est pas patient et que tey bu ñu waxee accompagnement on parle de coaching léegi si biir coaching bi aussi dañ leen di wax par exemple le pôle d'emploi est là c'est pour les jeunes et on s'est trouvé que d'après tous les sondages qu'on a fait si région yëpp les jeunes ne vont pas aller à la quête du savoir aller à la quête des informations donc avec tournée mën na nekk bi ñu dugg aussi si biir dëkk bi def des caravanes et tout les sensibiliser que mën na nekk il y a le pôle d'emploi il y a tous les apprentis qui sont ouverts à eux donc c'est à nous les jeunes d'aller vers ça. et pour vous contacter euh, comment faire. 77 769 77 99 77 769 77 99. Am ngeen euh, page Facebook aussi si je ne me trompe pas. réseau des champions pour réussir au Sénégal. merci beaucoup Khoudia. waxtaan bi neex na loolu. Euh, xam naa ba beneen yoon incha allah. allez merci ñoo ko déggandoo sama gars yi képp kuy wut liggéey képp kuy bëgg jàng métier mun nga jël contact ak réseau des champions pour réussir Sénégal par le biais de Khoudia qui de moi. quant à moi jox leen dox daje ci beneen podcast mën na nekk ci beneen région ci fan yii di ñëw. jaamu dong la. am fi koom-koom alal ak ndam dina nekk. dina nekk.